direct news ñëw ak de mil législative 2024 ca Kédougou nee na Moustapha Guirassy artisan de l'unité et de la victoire écrasante waaw loolu day loolu de mooy liggéey ba di loolu day mooy liggéey ba di a boole nit ñi daal ñu nekk benn ca coalition ba le ministre éducation kon taxawee foofee ca diwaanu Kédougou xoola Cheikh Thiam <laughs> Cheikh Thiam a ngi ni xew toog ci ginnaaw <laughs> bëggoo di feeñ waaye tey naa la jéemaane ci digg dëkk bi ba ñëpp xam la yow yaa ngi nii yow bu ma amoon tey rëdd nga xam léegi naa am lu ma rëddee bu ma amoon lu ma rëddee na maanaam léegi ma nekkee kër naa ne tey de moom yoroon naa kii léegi mu ngi doon rëdd ci télé bi léegi <laughs> xoolal Cheikh Thiam gisuma ko mais mi ngi naan xoolal du nitu da mi ngi may ruube ak di ma weer Cheikh Thiam yow jàppal ne fi nii nit ñi xam nañ la boo génnee teg ci mbedd mi nit ñi dina la xàmmee deux minutes pour lire l'essentiel waaw kay Sonko un génie politique point d'interrogation da koo jar waaye grand nag nag <laughs> grand nag voilà ah, nag trop nag. kay ñëw rescapé yaa ngi ni waaw ñoo xam ne dañoo bokkoon ci Macky Sall lay wax nii rëcc nañu ci ouragan Pastef bi ñu ne face au tsunami mm-hmm. élection yi comme suuf su yëngu Japon mm-hmm. nee nañu ñu ngi nii raar na ñu nekkoon ci ancienne majorité bi téewaat encore seen base ñu ne ca Fuuta gële ba Ngom daw Daouda Diallo mi mooy frère Harouna Dia moo nekkoon questeur assemblée Moussa Bokar Thiam borom internet ba rëcc na Mori Diaw rëcc na ak Amadou Daawa Diallo maire Matam bala ñu ngi nii s'impose face au transhumant nañ ci dellu saat ci kanam tuuti dégg Adama Diallo ca Gossas fait mieux que Macky Sall imposé wu na Gossas su dee sa guddi réew ngi nii Macky Sall moo fa gañewaat transhumance yi yàqalaate dong la ñu man romb man xaw ma man boo àndee ak Ousmane Sonko sax nekk transhumant ba war a romb ay boo yoo xamante ne yow yaa digle woon pour ñu tëj leen yow xaw ma yow yow nooy yow nooy taxawee caa dégg critique yéen a kaay ñëwaat ñu ngi ci Podor Cheikh Oumar Anne dëggal na kàttanam foofee moom maire bu ñum waaw journal bi ne waaw mais est-ce que député yi aussi du nekk ay député wu parti exécutif bi imposé leen seen dictat Abdou yóbbul volume ba mu jeex dégg évidence seeni ka ah cam Ousmane Sonko ce visionnaire qui redessine le destin politique du Sénégal waaw kay kii moom xoolal amul point d'exclamation amul point d'interrogation amul ay point dara trois points de suspension amul ci point final affirmatif loolay deme cuuraay dëmmam bi de fi mu jaar bi yoon moo gën a tar sax yële passé tar na waaye journal bi ne wallahi laay jur na leen yërëm na leen waaye yërëmoo leen ko bu mu nekkoon seen bàyyi doo leen ko def c'est pas parce qu'il n'est pas leur père jël Ablaye daanaka mu yor téeméeri at bëgg a doon député jël ko exposé ko noonu def ko dem estati solol ko koppati solol koy daal te bind sa texte signé amoo leen sax jom amoo leen jom lépp <laughs> allah bu ñu mënul assumer ay doomam nañu nañu effacé wu ci langum politique bi PDS dee benn yoon fu waay xam jëm mu gën di mu mais moo gën Ablaye Wade muy exposé. rafetul sax ami moom dafa amul bokk. dóor ma ami jamaa noir moom dafay yàqu rek yow ko wax. wax ji ñaaw da ngaa yaakaar ne dafa lamb. jërëjëf Aliou du dugal jërëjëf numéro boobu boo fi duggee direct dinaa la wax luy tàkk te du fay. wax ah, ji ñaaw na de. yow bu seetaan ma ñoom. dinañ xam ne yoroo leen bàyyi boo xamante ni nii <laughs> daa ragal xanaa ñuy gis ma man ni ma zuloo <laughs> xanaa gisuñ ma ni ma. te démb blouson nga maye cela veut dire que à tout moment mën naa mën ngaa xeex. <laughs> si tam dégg nga loolu ña transhumé woon yëpp heure bii la mbir mi neex dañ naan xam nga lan la. tey mu neex tey mu neex. Ah, ah baax na tey jii nag lay neex ba gaa yi dem di jubilé ba ngeen topp leen wala ba gaa yi di réunion ba ngeen dem toog ca taabal ya yàlla na ngeen fa dajeeg ay boo yoo xam ne yéen a leen suuxlu woon dem boole leen joxe seen numéro ba pare publier leen ci Facebook ba ñu jàpp leen yàlla na ngeen fa dajeeg boo yooyu ñaf leen ba ngeen saw. teg trois mois yi. Eh. bokk xoolal bu ku mu neex nga commandé bindu loo neex. du ñu muusa ka mu tër bi ka muusa ka mu tër bi ba daggan ci réew mi. Mm-hmm. ba mu légal. Ah! mari yoral loxo bu set ak loxo bu tilim ak yaa xam yónnee nit ñi message suba ngoon guddeeg ba ca bëgg a xëy fii gars yi bëgg taxaw naan ay way le projet te yow projet boobu sa pexe bu sotti woon ba léegi heure bii gaañaa nga kaso ba léegi. waaye yow ñu def exclusive yéen kaa ñëwoon ñun ci reconfiguration institutionnelle au lendemain de la victoire de Pastef Sonko au perchoir ana ko d'accord sa loxo ca kaw. waa tendez ñu xot mes colonnes vous allez prendre une feuille. ah ñëwal rek. non non non day dem assemblée waaw wala Maurice Suzek John professeur la en sciences politiques encourage l'option pour éviter une dualité au sommet de l'État man bu ñu ne dualité rek may dee. <laughs> dëgg réalité kut ko kut. na dañoo ah, premier ministre baa ngoog dégg dafa ne en raison de sa force politique occuper le poste de premier ministre pourrait être risqué car souvent un poste fusible luy ñëw sa kaw lay daal dégg tandis qu'il reste l'élément central de la scène politique il serait donc préférable qu'il soit président de l'Assemblée nationale car cela limiterait les risques de dualité ou de concurrence au sommet de l'État mais fii dafa amul wujje waaw ñu bëgg président ci boppam chaque jour dañ naan sa waay il lor ñu mu ne leen bu mu ko piis na ne ko jàkk waxul dafa ne bu mu ko lorñe de fauteuil bi na ne ko jàkk xool ko waaw ndax man ci loolu laa doon liggéey pour moom mu toog fii. mais man kay tegal leen ci dama ko ko yéene. vraiment ah. il faut arrêter. ak kàddu gu sedd dama ko ko yéene. ndeysaan moo baax nag suñu njiitu. dégg ñu dem l'indépendant yéene kaay ñëwal ñun ci ah Cheikh Oumar Anne nag am nga doore da doo doo ko ndaw ci réew mi. xaw naa rey gars yi nee nañu ca Podor ak li ko wër waa société civile nag rafetlu nañu. opposition baa ngi nii sukk nañ jébbalu ñoom ñëpp d'accord nañu voilà forum civil tamit joxe nañu ay recommandation ñu dem léegi kon yéen kaay ñëwal ñun ci ana fu jëm ana ko d'accord sa loxo ca kaw mu ne ma liir <laughs>

mais Ousmane dékku na ko. Maodo critique lay ko de. <laughs> kii kii dee barki yonent kii li mu dékku ci fukki. dama a métti fukki. Eh, ñii di wax ne nag lii dafa mitig yooyu nag yéen nag neexul ba neexul nag mais daa mel ni da ngeen tukki woon benn instant. at yii paase fekku leen fi. déedéet fekkuñ ko fekkuñ ko fi dee. kii waa këram doomu li ñu dékku rek rek waxantuma la ak moom mi nga xam ne mooy ndeyu mbili gi mu ne reste premier ministre. c'est prendre le risque de finir dans une dualité avec le chef de l'État amut car la personnalité de Sonko ne le prédestine pas à évoluer sous la tutelle de Diomaye xanaa nekkoon ne moo tax na Diomaye ñu ne moom moom moom Ousmane moom jëmmam nekkul kuy boot waaye lu tax mu d'accord oon kon poste premier ministre bi benn ñaar lu tax kon mu d'accord oon tànn Diomaye ah d' accord nekk bouclier wu Diomaye lépp loo xam ne critique la mu koy àngu bàyyi Diomaye muy doxal. Mhm. mais il faut nag vraiment bëgg jël li def ko débat. yeneen yi des bu ma ko lire de bu moom ngeen ne gars yi dictateur la l'observateur ñëwat gis nga ko vue de Sonko le dilemme boo ko déggee ci nasaraan un choix difficile. waaye dafa ne le dilemme stratégique. le leader de Pastef entre le poste névralgique de la primature d'où se déploient les grands chantiers de la politique publique et le perchoir de l'Assemblée nationale qui lui permettrait d'asseoir la profondeur de ses convictions sur le terrain législatif et de symboliser la verticalité de son influence Ousmane influence am wane non il faut mu wut may rëdd pour won gars yi ne leen Ousmane wala may mii may bëgg a rëdd te mu rëddee rëdd ci mu ne réew mi kenn mënu fee liggéey. am nga rëddukaay. xam nga keroog Aliou nan la génnee rëdd gi. góor ga day day jàpp rek. pare rek ne day seede asadu. gone gaa nga sol loo xam ne daanaka yàlla na ma yàlla jégal dënn ba yëpp nga mbedd ma muy di xool ca des. kookoo nga sol loo xam ne daanaka. mais problème fii la. daanaka ndax léppam ca mbedd ma. mais problème da nga da nga seere mu ne lii mu ne ma góor gi del jàppee ci biir kër gi fii laa yendu di dal sama kifoos fii laa jullee tisbaar tàkkusaan gi fii laa fekk asad asadullah ma ne ko ne nii. yàlla ngi fi yàlla dina koom yàlla day koom. moo ñu gën a xam ne a <laughs> tuuti rek. ci kaw baare. est ouest nord sud bi laa bëggoon indi ndax li l'observateur bi indi file wàllum influence gi mu indi waaye tamit mais conviction xoolal le terrain législatif dégg nga loolu après indi fii indi fii ni indi lii névralgique bi primature bi ak grand chantier de la politique publique. ak perchoir may jégal ma ko beneen dañoo ne ci farata lu waaw <laughs> ah, moom it lu ko tax a moom mu ne moom journal Youssou Ndour bi. est-ce que rek internet yi dañoo bëgg nga li leen may. l'heure est grave l'heure <laughs> est grave le mandat yéen kay ñëwoon ñun ci mu ne victoire éclatante de Pastef aux législatives maintenant au travail ñii bi ñu liggéey boobu dañoo amagum victoire ñu ngi leen rafetal. ñu ngi liggéey ba gani. wax dëgg yàlla. dañoo nelaw xanaa. waaw kay les points yéen a kaay ñëw ñun ci sëñ Cheikh Thioro sama sëriñ baa ngi sama xarit bi boo ko wooyee mu ñëw. daa bëgg deux ans barki dem dama koo jël fii direct mu ne ma xoolal dama ne woon tey bisu tey bi nii nii nii nii damay bàyyi nii rek ba suba waaye yow day ay dara sërif mënoo mën laa bañal dara. d' amul problème dugal ma. macha allah sëñ may sagal rek fu mu toll te fu mu toll it di seede seede gi waaw. yàlla na ko yàlla sagal. amiin amiin waay sagal na ko ci élection yi sax na. yéene kat gi nee na sëñ Cheikh Thioro def na escort boo xam ne ba Touba amee ak suñu indépendance ba léegi ñu ne mbindeef mosu koo def ci wàllum élection ca Touba Mbacké. mësta am. amut ne sëñ Cheikh Thioro escort bi nga xam ne moom la def ca département bu Mbacké déglu leen ma de déglu leen ma de mhm. ca jamono yi. Samba Yéla Diop ba ca Moustapha Cissé Lo jàll ci Baara Dolli Baara Dolli yi lee moom sëñ Seck Coro la mu fa def ci escort barki boo Ndiaye non lii dañ ne ñuy xanaa ay jinne ñoo doon wote wala am sas la waa Touba dañoo sasoo woon élection yi. sas la dañoo sasoo dañoo doon règlement li nekk doon élection donc honorable. Touba ñoo sonal Macky. lii tax na lii rax de compte. lii. règlement de compte xaw ma leen Macky Coro. sëñ Cheikh Thioro daal ndamam laa nga le quotidien yéen kay ñëw ngeen ci résultat élection législative bulletin de renseignement lan la joxe liggéeyu présidentiel ba la ñëw yeggali famille libérale bi Ablaye mooy euh, Ablaye mooy mooy Macky Macky mooy Idi ñoom ñooñu ñëpp boo leen dajale ak Karim yëpp ànd ba yàqu na bu yàgg. yée bu doon togg wala yàpp dañ naan daa nëpp. kon lii sàmbalaan laa ko sa pièce la woon yàqu na du dara des retrouvailles en décomposition. PDS PDS 76 bañ ko créé keroog meeting bu njëkk ba juddooguñu ca kaw Kaolack est-ce que xam ne seen dëkk lañ njëkk a meeting. ah bon PDS. pour la première fois sugu. Hmm. amuñ cinq députés. ah est-ce que am nañ cinq députés. mais lenn rek moo ko waral honorable. ñoom lañ cinq député. dañoo ànd ak ñu waxtoon a ànd ak. te ñoom ñoo ànd ak takku wàllu. loolu kese la ñoom takk coalition bi yëpp seize lañu amoon seize député ñoom ñëpp. Mm-hmm. est-ce que yàlla suñu borom. seize député lañu amagul. waa PDS est-ce que am nañ cinq. ah dañ koy seize dañ koy diviser par trois rek. Mm-hmm. dañ koy pàccoo rek. <laughs> xam nga parfois tàccoo ses députés nit di nga ñàkk dara te dara taxul nga ñàkk ko parce que ka nga bokkal dañ koo sanctionné et yow loolu yow da ngay bokkaale li nga xam te ne moo di sanction boobu fii nag ñoom ñëpp lañ sanctionné waaw loolu moo tax groupe sanctionné la waaw sanction groupée la déggoo ma la dama ni la sanction boobu ñoom dañ cee ñamaale ñoom waa PDS man de li ma jaaxal mooy ànd bi ñu àndoon noonu ba def ne Karim ay Jomaay mhm. laay mooy sonk man seen ànd boobu man man dem jàpp ci présidentielle yoo xamante ni sa waay yow tegoo ci sax juróomi weer nga dem ànd ak ki nga xam ne yow yaa ko fi jëlee mhm. doy na waar <laughs> lépp waxoon na ko. maintenant nag moo yor càkk bi. jub jubal jubbanti bi sax. la constance. la constance. la constance. non billaay soxna Amina yàlla ñu yàlla xiir ci lii. amiin yaa rabbi. ay waay yàlla buñ beew. su yàlla buñ soppee. amiin yàlla buñu wor. amiin. aywaay yàlla bu ñu yàlla yàlla ñu yàlla bàyyi ci constance amiin bay waaye suñuy kàddu démb yàlla na méngoog suñuy jëfi tey amiin sëñ Abdoulaye ne jàppal ci ñi nga bokk waaye ku say kàddu démb safaanoo lool ak jëfi tey baal mu dem honorable ay lii honorable keroog Macky dafa recevoir Idrissa Seck Khalifa sàll Ousmane Sonko ak ñeneen ci Covid bi mu génn nga jël photo Ousmane Sonko publier ne la constance après son discours yow tamit. yow constant nga de moom constant na. damay constant constant lu. damay constant constant lu di a toujours été constant. kii. mu génnee keroog yi mu wax. ce que du ma waxaat damay bañ am si ma da kër ay discours Ousmane Sonko <laughs> ba pare mais constance mooy tax nit ñi naaw la sax. am constance da ngay am da ngay tranquille ñu koy wax ataraxie. ba pare da ngay crédible. da ngay crédible c'est-à-dire que tu vas être là. da ngay crédible ah. ba pare tu es aimé quoi. tu non tu ne te manipules pas. xam nga tam sa manipuler moo gën a bon c'est-à-dire da nga naan lan laa waxoon démb booy wax boo jëlaat kàddu di tiit. waaw xam nga tey jii boo jëlaat kàddu waxoon daaw. waaw ma ma fàttali ko lan laa waxoon daaw hmm. te honorable dara gën a métti. sa yow mën nañ la yee de la yaa waxoon ni nga ni billaahi waxuma ko. dara gën nga wax ba pare xale bu boo xamante ni démb la judd. ne la tàmm na lii ay waxi kese lay wax waxoon na fii daaw wax na fii ren mujj bi nga xam dañoo tàmm baax. Mhm. say waxi démb lan lay la yaa fi waxoon lii. ay waay jëlee. léegi nag après toog ne man lu may wax waa koy. dañ koy kole wax ji la ñuy ñaar yi la ñuy collé. loo mani la. ñëpp a xarañ de. mani ñàkkum constance kay ma nga tàmbalee ci transhumance bu leen leen yërëm bu leen leen yërëm te bu leen leen baal bar du ma leen baal du ma leen bàyyi warkat lañ nga baal leen boo leen baalee la transhumance égale trahison amul beneen explication gars yi dañ lay bàyyi nii rek ngay ñëw toog seen parce que ñun Sénégal lañu mhm. ñun comme que étranger yi lañ dul dàq waxandoo ma ak sa mbokk sénégalais. pays de la Teranga. waaw pays waaw mais boo gars yi bu ñu toogee dinañ xam xel ne kii ma dendal nii ci jàmm paaka ngay wàcc muy dem. non mais attends ku mu nekkaloon defal ko teraanga fukki at ak ñaar ba ba tuddee ko doom ak lu ne moom la jàmpaaka dafa am ay mbir yoo xam ne yow da koy def nit ñi dañ la ciy naw n'aie pas peur. Mhm. mais am na yoo xam ne da koy def doo ci jëlee dara lu tuuti ak nga ñëw ci mbooloo mi nit ñi di la ci batu man dinaa toog ci <laughs> ab meeting laa lay wax nii xoolal pros naan wóolu ma ku ñëw pour liggéey si alhamdulilah mais jàppale woowu ma kenn sama baa laay takkawaat ci tribune ba. seey. ka dëkk Thiès noonu ma dégg ne bi ñu ne suba la élection yi la def publication ne ñëw na Pastef. suba la élection. kooku. waaw kii ñëw Pastef la. yow kooku réforme yi ci kawam lañ njëkk a dal. kooku giraawaali gi mu ci réew mi euh, euh, euh, ngi jox rendez-vous. Uh-huh. askan bi ngir yëre ni élection. ku sopp ma jambal sa loxo ca kaw. dégg léegi le réveil yéen kaay ñëw ak ñun ci Abba Mbaye voilà nee na nous avons une opposition animée par des règlements de compte personnel duñ ci am ndam de El Hadj Malick ndam la ca Jolof joué na ca le soleil yéen kaay nañu njàngatu kese la mooy li ngeen doon analyser fii léegi nii le son du scrutin le verdict yéen kaay ñëw ak ñun ci maître Ciré Clédor Ly félicité na kon Sonko ak Diomaye gàccee luñ ko de. ndeysaan instant bi ñàkk jom balaa may dee fu nit ñi toog nga ñëw naan da fay toog am ñoo xam ne heure yi dañoo waroon di làqatu amoo leen jom in ngeen jàpp ñu ñu nekk ci rajo yi ngeen ñu yónnee ay message naan yéen ay dunguru ngeen mm. ah, ay géwélu Sonko ah am na ci ñaar bi te du ñoom laa doon làqatu keroog fii ci bari ah. ki la jabar ji doon wax naan maa lay wut ah kat kat yooyu ma doon lim di làqatu ci bale bi mm. biñ transime ñaar bi ok eh, dunguru Sonko ngeen yéen. mais mbaa message nga ko ne ko bienvenue au club des dunguru. oui au club des dunguru mais xam nga rek man moom saa yi sama xol bi <laughs> day wa day jàng ay xasari di wàccee kaamil ndeysaan dama kii eh, tey rek ngeen dee waa parce que dañu doon pièce de ñëw leen rek ba ba pare ku xoolul si Samba Ndiaye lu leen defal. <laughs> jomaay sax ci boppam li muy doon président yëpp gëmatuma ne dana jëlati xalimaam boobu naan day décret fii nii ab ab transhumant. waaw ana Samba mi ngi fa ba léegi. dama xam Samba day ba léegi. bi demee Gambie Cheikh Bara Ndiaye ak ko a tooñ. mu ne kilifa ne ko mais seen groupe PCA yi azote ngeen Samba Ndiaye. ma ne ko ba nga azote ko ku ko njëkk a yeneen PCA yi ba jàppale groupe waaw moom xanaa ba léegi installé guñ ko. moo ma jaaxal. Samba kay daa far jaaree fa kaam critique de trop. est-ce que du en ñu dem les écoles yéen kaay ñëwoon ñu ngi ci victoire écrasante bu Pastef Matam Goudiri Podor Gossas ak Afrique centrale day résister nañu Macky Sall daal mu nga continuer téye Matam Goudiri ak Afrique centrale jël na juróom-ñetti député Amadou Ba moo créé surprise ba ca Podor écrasé kii di APR jël ñaari député ya. xoolal Jimo Souare sone na honneur ba ca Goudiri Adama Diallo ànd nawle conservé nañu kon Gossas Farba Ngom humilié na transhumant ya mooy Malick Sall ak Abdoulaye Sall Sall ak képp koo xam ne da ngaa transhumé woon ca bërëb ba ñëw ñëw. pour la première fois neex. c'est ah. mooy anti transhumant ñu dem. lii quotidien ñëw quarante département la Pastef gagné ku mën na def quarante département laa lay wax. desalul dara ci département yi waaye yow ma ma jaww <laughs> banditisme ngi nii gis nga sàcc alalu askan wi agent judiciaire de l' état pour détournement de deniers publics la escroquerie aux deniers publics banditisme à l' ambassade du Sénégal à Ottawa waaw lii tam maa jàmm laa yërëmul kenn Ousmane Sonko jullit bu toll ni moom déggal li journal bi bind xoolal les détails d'une razzia sans pitié yor sab yàpp yàpp di dóor di kuccal di luqi amul ci adversaire yi benn yërmande amul ci adversaire a benn yërmande dóor ba maareen Italie lii ba jàmm la kuccal groupé kuccal groupé les poyaat Pedri Ndiaye lan la bind nii les grands perdants de la coalition image xumb daal image bi xumb na li nga wax amut bu ñëwul woon tam Pastef day gagné transiment nga naan ay moo boosté résultat wu kii te yow ñu gagné la les grands perdants ginnaaw décision Ousmane Sonko bi ne woon ci bannière Pastef lay demee ak membre coalition ba ñu ci bëree bëri defar seen i lu mel ni Birima Mangara lu mel ni Amadou Ly lu mel ni Alaaji Ibrahima Mbow ñépp dañ leen a dóor Abdourahmane Diouf Aïda Mbodj Mimi Touré Mary Teuw Niane ak Malick Gakou nanditee Sadio Faye <laughs> ah nandite nandite ma nandite dégg ginnaaw nee ko demal assemblée Pierre Tine nag dawul coow moom it dawul coow source a ñëwal ñun ci l'autre supplice day miti de laaj leen ma lu xew au cours de justice bi dootul yàgg te dara danañu ko defaram ca masonite ba quatre-vingt-dix-neuf la ñoom laal nañu plus de cent Ousmane ne maa ngi leen di garantil ne leen vingt quatre heures laa leen may wallaay pour dindi ay ay immunité parlementaire loolu du dara li tax ñuy njëkkante bëgg a nekk député nañ dem nañ ñëw na ñëpp ñëw ñoom ñëpp nañ ñëw képp koo xamante ne ab luubalkat gaa nga vingt quatre heures ñu dindi sa immunité parlementaire loolu nekkul si majeur waaw <laughs> même bu dee débat d'orientation budgétaire bi guddiñ toll nii moom mooy farata farata farata farata farata jàpp leen ne majorité présidentielle bi lee xelam ca haute cour de justice ba la tëj leen frontière bu kenn dem ah Cheikh Omar Anne ak am jom ñu ne c'est le super Thierno de Podor gagné na transhumance mu ñu jom transhumance transhumance yi xoolal même bu ñu ñëwee Pastef mënuñoo muus ak moteur bi man ba ab transhumance ma defal le promo wuy daaram wor la xaram di faaxan di faaxan te lii laa fi xuree sin nga lañ leen di dugal naa fi xun naa féq tojub réew reyi nit sàccub xaalis daw ca ñu sell ña bëgg faa làqatu yàlla ne wuy ma gère ay naa féq lañu inna allahu maa saabiriin munaafiquun yàlla wàcce leen si waaw yàlla ngi ànd ak aji muñ mm-hmm. yàlla bañ ko ba wàcce leen saar jagleel leen saar kaafiru na yaa ngi bu yow ma xiyaamee du ñu gis àjjana naa fi kun yaa ngi nii de. merci euh, soxna Diarra. ñu koy dégg rek. waaw parce que dañ la doon pièce rek. biñ yaay xoolal campagne bi yëpp soo waxaan ni ci transhumance ñu ne la non mais Ahmed Ahmed zéro waay graw waay comme que pros nee na waay graw pièce la. pare nañ ci ñoom de. yàgg na. te li gën a garaaw mooy ñoom dinañ perte ñaari yoon. non seulement dinañ perdre fa jóge mais fa ñu nekk aussi duñ fa am dara. ku leen di woon duñ fa loolu mooy gën a loolu en fait. yow mi dina jëm paaka sa baay ba pare ñëw toog ak yow encore. mukk ci àddina. <laughs> lu tax ñu taamu ko ci ñaareelu saaru eh, safaak witar ja ginnaaw sabbi isma ah, nga daaneele ko ñetteelu saar ma dafa mel ni ah? ki ñu jëloon kii ah? naa si nga teg ca ñaan nga ñu daal di sëlmal jukk yàllaa xam lu tax munaafiqun fiqi bon yi Mm-hmm. woorkat. waaw mu kaafiru. Alassane mi jëloon na gàmm honorable daa mel ni dem na gañe na de. ba na gañe ah kooku kooku nag jig nañ ko nag. day gañe. na waaw. kooku bokkul ci moom naa fi xun yi. Mm-hmm. Sud Quotidien ñëw ñun ci xoolal neex nag li waa système bi dama la dégg par force doole mbaam recomposition day amaat. Mm-hmm. taal xale naan par force doole mbaam xoolal. li ndem si yàlla bay di say sama papa doon wax ancien maire Njaaréem Limaamu Laay mhm. nee na ñun sërif ay mag la ñu góorgóorlu leen ñun ñu bëgg a dem dañuy dem ñu bañ a dem dañuy dem kon góorgóorlu leen waaye gis ngeen yéen ñii <laughs> ngeen bëgg a dem da di dem ngeen ngeen bëggul dem da ngeen di dem ala kulli aali lu mënul ñàkk faaw ma am recomposition moom dana am borom koppati yi ko fi indi ñu mën a yóbbu retraite nar a bari <laughs> kii léegi la. ay waaye kii nee na leen dee leen seetaan revue de presse RTS bi ñu ñuy dem foofu waaye di ñëwaat seen notre télévision nationale. ah mais nañuy jënd nañ ñëw di jënd bii di ko yóbbu. parce que bii la bii la ñuy déglu nag dëgg du neex. loolu la mooy ndeyu télé aussi il faut ñu sagal leen. mais ñun ñoo caa la. non question loolu de ci kay revue la parfois. Mm. wala lii touché na ma sax te man xam sama xol bi ndeysaan moo may tooñ. du la tax a dem de na leer. <laughs> Euh, Macky Sall day ñàkk na Fatick. bataille de Troyes Takku Wallu Sénégal Thérèse Sey Pastef docteur Paul Faye jàmm ak njëriñ Moïse Sarr voilà département Bari ay finalement lii dans le département de Fatick. daa daan ba soir defar naan Pastef moom moo gagné ay waa jële vingt sept millions quarante millions contre vingt bu demee Takku Wallu dafa ndeysaan ay waa jële ma koy jël deuxième ay waay ay waay ay waay Fatick. woowoo ah terminé yéen a kaay ñëwaat ngeen ci Alioune Tine ginnaaw ndamal Pastef mu ne Sonko et Diomaye gouverner maintenant xanaa dañoo bàyyi. dañoo retraité da non non diggante bi dañ fay bàyyi te man yëgu ma ko. est-ce que dina ñëw leen di wopp ñu ñëwaat. dañoo gouverner wul wala leen jubóo na leen sénégalais yi wàccee tension bi dajale nit ñi nangu opposition bi mais ab institution la waa Alioune li wax na ko. xayaa bi bañ satala kurus ah! il faut réconcilier apaiser rassembler en reconnaissant l'opposition comme une institution la rupture systémique c'est avec tous les Sénégalais qu'il faut le faire dafa am ñu ñu tànn ñoom léegi ñu ne emploi des jeunes dundu gu seer gi dëkkuwaay feebar faju peuple bi daal li muy xaar mooy gars yi jëf lii la ñuy xaar jëf yépp ma kii <laughs> da ngay bàyyi wala doo bàyyi seede yàlla day bàyyi ku wax foofu mel ni baatu Macky Sall bi. Sall est-ce que du maay am naa tiit Macky da la da lay jiital. kii ñëpp la traumatisé lu Macky Sall def dèjà. non non pour man écran bi ci biti la am ko ah. jàpp Macky di ko déglu pour ma ne ko na fay. Ah. waa dictature la xanaa. rampante ou debout. non non da koy rampante <laughs> dafa dëbb na ko foo xam ne boo société tolloo day laaj dictature. ba kenn taal fi Macky sama démocratie yeggul foofu. télé télé bu taal Macky ma ma fay la. nga waaw. Macky ngi nii de waaw moom léegi ban njàngat la jàng ci élection day continuer day jël chef de l' Macky day jël chef de l'opposition wala. opposition ba ba ba Maroc. non man dama leen di laaj de. Ah, mënul nekk chef de l'opposition ndax nekkul ci réew mi nag honorable. xoolal am ma ngay giri ñote de ci foncier wu APR bi. ngirom mm. ah Kowas na fa di jël na Podor. Amadou moom itam am na ñaan de. Podor. vox populi ñëwee bi Pastef table sur une majorité. hégémonique. de cent trente deux 102 députés ñu ngi jógee ci département yi. 30 ci liste nationale. Cheikh Oumar Anne a ngi nii tient son pari et devance takku wàllu raw na Macky de Abbas de ngi nii giñ na ne du war waa Ndakaaru Ndiaye jël te du mës a war Ousmane Sonko waaw lii de lii de lii de lii de mooy ngor lii de ngor voilà waaw waaw waaw ministre bi tam war naa mbëkkee eh <laughs> boo jotee sama yaay damay far de <laughs> eh, dama wax lu leer attention de ay da moom xool ko nii kii xanaa xamul ni kii mooy moment national ñu ne seen caravane bi démb gars dafa amoon daanaka jàppal bàyyi. chauffeuru ministre bi moom moo dem mbëkk chauffeuru euh, euh, euh, oto ay dem woon pour lii baaxee baal. suñu budget national. garde corps ay dem bi déposé na benn plainte pour causer blessure volontaire. waaw Ousmane. nañoo <laughs> réglé cas ah lim doon war naa mbëkkee kan laa war a woo sax direct nii nii nii parce que du ponkal mi. la woo bi na moom pare na ci campagne bi. ponkal mi de démb yónnee naa ko message ma. ko hmm. baax. numéro bi sax laa war a commencé ñëw léegi di ko jaay. ok kon li nga nekk millionnaire. wala milliardaire naa laa koy di jaayee par deux chiffres numéro bi lu mu ne la boo ma joxee léegi nii un million ma jox la soixante dix nga li ci topp nag ma lay joxal beneen million. <laughs> kon léegi ñun ñi sax léegi du kon ñun sax dañuy bàyyi liggéey ñoo di toog. noonu laa koy doxalee de. muy dox ku bëgg ñëw jënd ku bëggul bàyyi. waaw am ah, waaw. am na yoo xam ne kenn du ko waxaale. laa ilaaha illallah mooy kii di waxaale Tine ngi nii nee na Sonko doit occuper la présidence du parlement. ministre Alioune Dione mi na wax sëfëram bi na bàyyi laa maman nationale nag. wax <laughs> na ay da da cee sonn de <laughs> waxuma ne kenn sonn ci nag balaa gars naan am ku ci sonnul. ak ñoo mën a tontu sénégalais rek. première place ñëwoon ngeen ci Moustapha Guirassy gis ngeen li ñu waxoon jaloore ji nga xam ne maanaam moom la def dégg oh Mimi Touré ak Cissé Lo envoie les vieux et recalés la retraite ay waay waaw c'est que faut savoir partir à temps à temps surtout loolu uh-huh. oui waaw dëgg la cim yaa <laughs> ilaha soleil de la révélation soppi ëttu politique bi par force jant la am na ñoo xam ne bëgguñu bàyyi quoi mm-hmm. mais malheureusement jant ba bu leen fa fekkee ala kulli ali loo tooy tooy mu wowal la ba nga wow kaw amoo choix. ba naaj bi ne saa yi. amoo choix munoo aaya ka aaya ka aay wala yére bi rafet rafet rafet rafet ñu fóot la weer la te jant bi du la wàcce ak lu yére ba seer seer seer ak la jant ba sori sori sori non da lay wàccee ala kulli ali waaw comme ngay def Ousmane Sonko le soleil de la révolution lors du renouveau politique incarner une vision politique qui a à beaucoup de nos gouvernants wallaay gars yi seen gis-gis jam ñaajo dong la doon yem dégg nga ma de c'est être capable d'une compréhension synthétique des problèmes du pays et de ses grandes évolutions qui doivent se traduire notamment par des décisions formulées informées et guidées par des valeurs et principes dans le cadre d'une action cohérente kii mooy Ousmane nit da jël sa ay jikko nekkuñ ko tuddee ñu ne Ousmane ñu ne waa moom lan la woon ñu ne aka tabee mbaa a tax ba yàlla ci boppam laa lay wax nii daal di koy xoolal wutal kër ca àjjan wax ko ci alxuraan tudd ko tabeem nabi def doon def attaque manqué xaalis Ousmane décalé ko ñu ne aha ah, bàyyiwul rek ba Mouhamad dem mu toog fii di ruube de déedéet ñu ne alxuraan ji tasaaroo ñu ne waaw nan la ñuy def nag ba dajalee fooy yéeg ak bërëb yi ñu ko jotoon a bind lii ci ay xeer lii ci ay xob lii ci lii yëg lii ak lii ak lii ak lii Ousmane ne je m'en déggoo ma de naa si ba bakkan attention moo ko fa am de. bagaas yi tasaaroo woon na di. tasaaroo. ñëpp ñàkk espoir. ah ah. c'est quoi le problème de Alioune Tine damaa xam. eh Samba sa kàddoo ngi nii victime de son discours démagogique Bougane a ngi nii Barth a ngi nii Anta Bokum Pape Djibril Fall ah kii kii la Cheikh Youm. ak Boko. Anta la plus chanceuse. Anta nag ci télé lañ ne mais Anta yow amul luñ bokk koñ ak yooyu de mais waxante dëgg moom mu jotee dañ koy wax. moo chance nag. Anta la grande muette Anta un vrai soldat. anta la politique. une chanceuse. oui moom ku dégg séeréer. moo ko fa am. dama ne ko anta la grande muette. anta grand soldat. anta la politique. ma ne xaayaar ku dégg séeréer. <laughs> affaire jël suuf dafa jaatal. yaatal yaatal bu yaa. nuyul ma colonel. fa <laughs> la ñëw dégg record ñëwal nit nañu gañe rek duggaat ci xolu nit ñi. képp Ousmane nag tey daa waroon dem stade wala woo nit ñi ne leen dem leen stade. waay waay waay euh, match yi ñu ñu ciy woo nit ñi ñuy dem aussi. léegi bareetul ay nit de je sais pas. bu nekkee bu baax baax. daal en tout cas war naa accès bi facilul ci koo xamante ne rek oto nga am mooy gën a lay gën a oyof ci yow surtout ñi a deux ans day def bi daal intérimaire Pape Thiaw nee bëgg nañoo def match bu rëy match bu rëy rëy rëy en na Sénégal gagné rek nañ teg 4 4 5 rek jël na ba pare ami bay 4 4 5 bi bu ñu ko tegee dina baax en suba dina baax 4 4 5 Sénégal jël na ba pare gis naa loolu ñooñu dañuy wéttali waale ñeneen ñi rek. léegi ba kañ. xam naa ne ah, on ëpp rek. pour gañe bi gaaw. mën a fàttali waaw. gañe bi day gën bu baax la nag. waaw ah, mën naa ci rek na Sénégal ëpp rek. ñu dem wala. Hmm. d'accord kañ soxna kii jaara suba ak allah. waaw ah, ba suba incha allah rabbi. cant hmm. ak gërëm ñeel waaw sant naa leen gërëm naa leen sant nañ tam internautes yëpp gis nañ sagal bi. Hmm. vraiment internautes yi mënuñ leen a fay. diggante jour élection yi moom ak démb ak tey. ah waaw waaw waaw très bien. Hmm. vraiment kontaan nañu trop. baar bi yéegal nañ ko ba ca kaw. ñun nag ni ñuy def nag vraiment nag mais nag yéen tamit yéen soxna yi doo leen organiser sax benn ndékki wala benn añ. ñu wax waa groupe bii nga xam ne groupe groupe bu 2A bii WhatsApp bi ne leen ñun ñëpp dañ leen fay daje wax ko fii. organiser tam benn match de gala tamit non c'est que sugu aussi man sugu tamit njariñam ci kër gi surtout match bi internet bëgg nañ ko trop vraiment mais lii nañ ko wax match bi xale yi ñoo ko xale yi directeur coordonné match bi. non non match moom affaire góor la léegi ñun bu defee ñu dem ñun mën nañu. préparé ya cay dem ak yooyu dem supporté yu. voilà ah yow tamit ku nekk ak sa rôle aussi. suñu doxal la